sës na fa mooy jurit yëpp dañoo bëgg joxe seen farata am ci yéene waajal ko ñi ci am kartan jóg ni ñu ngi koy defi tey nag am na gàllankoor ba mënuñu koo def waaye nañu am xel mu dal ni yàlla mi doon bindu tuyaaba dana continuer di leen bindal tuyaaba ci yéene yu rafet yooyu nga amoon ba takkoon jaam bi ba mu xamee ne naroon naa dem mbaa waroon naa yóbbu nit mu dem yéene ju rafetam jooju mu amoon te yàlla dogal tànk-tànki jamono dox digganteem ak moom na xam ni téye nañu ko ci mu joxe loola waaye ka doon fay moom génne woon na budget bi ba àggal te doo ko delloo dana ko jox seen waram kon nag loolu day li muy tekki yéen ñi amoon yéene yéen itam ci dem Makka amoon yéene yóbbu nit mu dem Makka ngalawaay yéene jooju bu mu dañ la nga yéene woon a jox waa jooju nga yërëm ci mu joxi farataam ba bisub tey bul ca génn jëlal loola jox ko ko mu def ko feneen ndax jamono boobu tuyaa ba ngay wut kon yool ba nga waroon a am ci ajali ko Makka continuer nga di ko am yool bi nga waroon a am ci dem Makka di nga continuer di ko am kon tey bu kenn tekki ngembam waaye yéeneem naroon na maa yóbbu màkka yow mi yow naroon naa laa yóbbu waaye mbas mee tax déedéet alal ji nga ko doon yóbbu mu di ko yóbboo makk léeg-léeg sax aajo woo na ko ci këram lu ëpp yoonu màkka kon ngalawaay jox ko ko mu dunde ko jox ko ko mu àggale jànkam bële jox ko ko mu àggale naalam mu tëwee bu boobaa am nga tuyaaba joo xam ne ni mooy dem màkka te ñaanal ko yàlla jamono bu aj ubbee fekk mu mën a yóbbu boppam te loolu yomb na lool kon mën nañoo téye yittey nit ñi ba duñu dem waaye yéene yu rafet yi moom bu ko kenn téye innamal amalu binniyaat yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na bu ngeen yéenee rafet rek ma fekk si leen ci loolu la yàlla wax loolu mi ngi ko wax bis ba keroog bi ñuy gàddaay di dem Makka jóge Makka jëm Medina ñi am pas-pas bu wér ak gëm gu wér fu leen yonent bi sóob ñu nangu ñooñu nangoo ànd ak moom di jéggi xeer yi di jéggi tàngoor yi fu ñu jëm ngir rawale seen diine ci barab ba diine amee jàmm muy dëkk bu ñu woyee madinatul munawwara loole ba mu demee ba ñu fa àggee fekk nañ fa xol yu yaatu fekk nañ fa dënn yu ubbeeku teeru leen terel leen teraanga joo xam ne ña déebul woon bañ ko déggee dañoo daal di fabu ni nan dem ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaa yaa ngoog gaa yaa ngi ñëw ndax yëg nañu leen fi am ci teraanga ci ay tool ci ay soxna ci ay kër ba ñu ngi ñëw yonent bi dina ñëpp ñëw yéene yi moom yàlla mi ko xam mi nga xam ne moo nekk ci xol yi xam na lépp fa man kaanat ijratuhu lillahi wa rasuli fa ijratu ilallahi wa rasuli wa man kaanat ijratuhu li dunyan yusibuha aw imraatin yankawuha fa ijratu ila ma ajara ilay yonent bi ni ku ñëw ngeen am lii ngeen am bu fekkee yàlla rek a tax ak nu mu mën a demee danga am yàlla waaye ku gàddaay nag ngir koomum àddina moo jàpp ni di ko ci am wala bànneexu àddina boo jàpp ni di nga ko am boo dikkee yàlla jox la loola te mu yem fa loolu yi nag moo ñëwaat tey kon ñi amoon yéenee dem màkka nañu xam ni yéene yi yàlla dina ko àggale ñi amoon yéene yóbbu nit màkka nañu àggale yéene yi ndax alal lañ daan joxe pour mu dem alal jaa ngi fi nañ ko continuer jox ko ñooñee loolu mooy xéewal bi bu boobaa mën na cee jariñu lu baree bare ndimbalante wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal odwaan yàlla moo nu digaloon ni na ngeen di dimbalante seen biir te di dimbalante ci mbaax waaye bu leen dimbalante ca safaan ba safaan bi kenn waru cee dimbalante te nit ñi ne dafa mel ni alal ak min zalik dafa mel ni jamono bii leen la yàlla ne woon bu ko ci kenn dimbalante foofa la ñuy dimbalante léegi foofa la ñuy dimbalante loola feeñ na ci phénomène bi nekk ci àddina bi fii mu ne te di ko bëgg a tas di bëgg a tas bokk gi di bëgg a tas diine ji muy li ñuy woye réseaux sociaux yi xoolal niñ ciy dimbalantee alal ismi wal odwaan jamono boo génnee benn audio wala benn vidéo buy xas doomu aadama buy yàq doomu aadama balaa ngoon a jot dina daj fépp te jamono boo génne woon benn vidéo buy wax nit ñi nu ñu war a gëmee yàlla buy wax nit ñi nu ñu war a jàppe nu ñu war a jullee nu ñu war a woore nu ñu war a asakaare nu ñu war a woore aj di nga fi toog weer téeméeri duñ ko liir kon laa yataawanuna alal birri wa taqwa bal yataawanuna bil aks kon li ñuy dimbalante loolu yi musiba la mbooleem li ñuy def musiba yi mas a am ci àddina ñu ngi wax ay mbas waaye mbas mu gën a rëy loolu amul te kat xiiwal gu rëy ci nekkoon bu fekkoon ne xamoon nanu xiiwal gi nu yàlla indil ci loolu ñuy wax réseaux sociaux yi li nu ci yàlla indil ci xiiwal portable yooyu nu yor nga xam ne yàq na sunuy nelaw yàq na sunu jaamu yàq na sunu dund te wallahi li ci nekk ci xiiwal bu nu ko jariñoo wan kenn du xam na mu toll xoolal dongab daara bii nga xam ne am na téere bu mu doon dégg musta mën a am njëg gi tey mu yor paquet bu tuuti boo xam ne bu ko tere sarsee rek téere bi génn mu mën koo jariñoo loolo yóbbu ko ba ëllëg mu mën a taalib ay téere ci boîte bu ndaw boobule waaw loolu teen koo jariñoo waaye lu ñu koy jariñoo dégg nga li diw wax diw yónnee ma ko dégg nga saaga wi diw saaga diw yónnee ma ko léeg-léeg sax bu ñu amul saaga woowu ñu jéem a toppi kole ba am luy niroog lu bon boo waxee ay wax wax ji lu mu rafet rafet benn baat boo ca boo ca doon wax du doon baat bu ñaaw dafa am foo ko jëmale ñu ni ko dagget bu ñu ko daggee teg ko ku dégg loola danaan waa ji da doon saaga te fekk na da koo jukki rek nit ku bon nag mooy jukki nit ku bon mooy jukki loolu amoon na boo ma gis ci bindkat yi ñi nga xam ne nii dañuy dal ñaare ay nit rawatina sunu anam gii nu nekk di tasawuf mboolem ñi koy ràddu mboolem ñi koy delloo dañ leen di duural ci ay terme di leen duural ci ay faqaraat yoo xam ni dañoo tappaleeka dajalaatu rekk ba mu niruw saaga dajalaatu rekk ba mu niru lu bon ñu génnee li ne li ñuy defkat lii lañ ciy jublu ñooñu buñ ñëwoon tey dugg ci jumaay ji nii mu yaatoo nii mu feese fa tabaarakallahu ni sàppe yi jekke bu boobaa duñu ñu génne loolu waaye dañuy dem ca ginnaaw jumaa ja seet waajuy fo waajuy caaxaan ñu foto ko ni lii mooy jumaa ja loolu mooy copie yu bon loolu yi nag lañu jumtukaay boobu indil kon kii jëfandikoo jumtukaay boobu ci googu anam lañu ko doon tere démb lépp def na ko jikko yu bon ak kabaa'ir bakkaar yu mag yi ñu doon yi nu yàlla doon tere muy jëw muy ràmbaaj muy fen yooyu yépp tey jël nañu jumtukaay bi mu gën cee am place fu ñu toll ñu ngi jaxase nit ak nit ñu ngi toxal yu bon lu wax ji baax baax bu doon junni yu baax bu ca benn génnee boo xam ne mënees na ko utile ci bon boobee moom la ñu naan juxeet ni déggal waa ji li mu wax mbokk yi ndax jumtukaay boobu jotul ñu jariñoo ko ci sunu lislaam ngir dëggal wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamu ni wan inna allaha yuayidu umuura haasa diin bi rajulil fajir nit ku bokkul ci diine léeg-léeg mën naa defar loo xam ni day jëriñ diine te lii bokk na ca wax naa la li nga ci mën a am ci xam-xam li nga ci mën a am ci téere li nga ci mën a defarug bokk goo xam ni waajaa ngi ca Amérique nga mën a defar bokk gi fii ci senegal waajaa nga feneen nga mën koo defar jumtukaay boobu lu rëy loolu mu am lu tee ñu utiliser ko ci waaye safaan ba mbokk yi noo ngi ciy rambaaj mbokk yi noo ngi ciy wax lu amul mbokk yi noo ngi ciy tas ak bokk mbokk yi noo ngi ciy xeexale aw nit ndax loolu lanu yàlla digaloon déedéet yàlla danoo digal nuy def lu baax di wax lu baax di yéenente lu baax ci loolu la ñuy amee njariñ tey ak ëllëg te kii nga xam ni moom la ñuy wax ni mooy sunu kilifa Mawlana Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu ci loolu la nekkoon ci loolu lañ doon digal loolu la daan ubbi fenêtre ba ca jàkka ja di ko tombal mag ña di leen ko wax di leen teg ci njub ba loola yóbbe woon leen ci njub njubin woo xam ni ka jàng ba jeexal téere yi ak ci firul iji ñoo yem ci jaar ci yoon ndax lan dañoo dégg ndigal baat bu sëriñ bi wax ni def leen baatuñ ko lu sëriñ bi wax ni bàyyi leen defatuñ ko loolu mooy topp ndigal léeg-léeg nag baat boobu dañ koy firi dañ koy tënkiroon rek ni murit ndigal léeg-léeg waaye lan mooy ndigal kenn du ko tas kenn du ko tas kenn du tas itam kan mooy digle kan mooy digle mooy lan bu ñu nee al amru hunaka amir am na ku war a digle ki war a digle kan la mooy borom yëf yi moo war a digle de ci ci des lu mu war a def mooy li waaye kenn du sos ndigal ku sos ndigal dañ ko war a bàyyeeg yow ndax yow moomoo yëf yi moo mooy yëf yi ci moom yëf yi moom li mu digle nee na fang fangaaral mu ngi téerim yi mu bind ko boo ko xamee baax na boo ko xamul doxal bala ngaa def cent mètres gis ku ko xam mu wax la li sëriñ bi wax bànneex rek leen topp waaye ku bëgg a xam-xam kenn ci yéen bu bëgg na dem Amérique wala mu bëgg a dem almaañ mosu faa dem balaa jant bee so mu wëri ku ba mas a dem mu wax ko nan ngay def ba dem yaa ngi wuti xam-xam fa nga jëm yaa ngi wuti xam-xam bu la ko waxee ba noppi nga ne ko ndax xam nga fa kenn koo ma mën a booleel yaa ngi wut xam-xam waaw tukki su gàtt si soriwul boo àggee mën ngaa wàññi ko lu tax nga di ci gëstu gëstu bu mel noonu te tukki bu yàgg bii bii nga xam ni boo tàggoo dootoo dellusi ci nga fi bàyyi dootu la gis nga wéet yow kenn ci diggante xur su ndaw nga nar faa jëm doo laaj foofa lu fa nekk jëkk te doo dellusi de doo laaj sëñ bi doxal ay kilomètre ngir xam alaaxira googu nu jëm lu fay musal nit yaa tey li ngay def de ndax fu gàtt fii de doo dem mukk te laajoo waa ji lu mu xaritoo xaritook yow bu jàppoon ci sa loxo bii loo ko gëm-gëm ni ko kaay nu dem bala ngeen a génn ëttub jumaa ji nga ni ko fu nu jëm waaw fu sori foofee nag waa ji ni la jaaral nii rek te doo ko ni fu nu jëm doo ko ni jëm laaj ko fu ngeen jëm bala nga àgg laajal fi nga jëm bu dalee sam xel nga wéy bu dalul sam xel wañukul loolu la waxoon moo tax Sëriñ Tuubaa doon nu digal ni bala ngeen a ànd nangeen ngeen ànd ak koo xam ni yàllaa ko ñor ci yàlla la lay woo ci yàlla lay digal ci yàlla la lay tere waaye bul ànd ak koo xam ne bànneexam moo ko tax a jóg wala tusahib gayra man bihi tusaad aqlan wa diinan abadan tanal muraad nee na foo toog na fa am diine na nga fa am looy jariñoo waaye loo fi def mu ni defuma fi dara foo dara néewul kenn du fa toog kon doomu aadama bu jógee day am yitte ci jëm fi dara nekk fi dara nekk nag mooy ñaxam foofa fa ñu jaaroon ba am loola foofaay jaaruwaay ba jaaruwaay bii ñu daan tudde ndigal du lenn lu dul li génne ci mbindum Serigne Touba démb ci laa mañam la noonu ko doon dégg dem nañu ba mënatuñ koo dégg nettali yee jeex na ña doon nettali dem nañu te danoo gaaw a sos bu nettali bi dee dégg sax bu yàggeeg nun nu dolli ci yeneen ay safal ba dootul doon dara day daal di mujj aw doonub léeb nga delluwaat ca lemu bindoon lemu bindoon soriwu leen mi ngi fii jege leen lool yàlla dogal na tey boroom xam-xam yu baax yii ñu ngi yor jumtukaay bu ndaw boobu di leen sànni ay bind foo mën a nekk ci àddina bi yaa ngi dégg nu tasawur tasawur si xaar lu muy firi yaa ngi xam tasawur subaan lu muy firi yaa ngi xam masaalikul naan lu mu firi mais tee ngaa dagg sa dund gi dix minutes yoo xam ni bis bu nekk di nga ko sase diglu benn bayit ci mbéyu mbindum Serigne waaye déglu benn nettalikat benn xisakat góor gu baax ga nee na saa baay nee na saa nangam nee na mu dëppoo ak Serigne Touba jàppal bu dëppoowut ak Serigne Touba sànnil ndax du Serigne Touba kere ba Serigne Touba taxaw ci géej gi demul إذا ذكرت سالك المبيت وسالك الأمير والتثبيت طارت إلى الجهاد بالأرماح نفسي ولكن sab an ilmaahi isaa sakartu la wax néewul isaa sakar naa dégg ngeen arab bu ñu doon mbooloo loolu lay wax waaye moom kenn la woon moom kenn la woon ayaa baxru waxit laa tusallis fa rabbuna taala ani taslisi akrim bihi rabba moom la woon waaye waay bokk yi kookii nag tey ñu bëgg koo indil lépp lu mën a doon nga def ca sa xelum bopp ak yëf yi ni ma ko yëge looy yëg da ngaa dara mënu laa yëg dara yëgoo dara mbaa la ngay yemale ko sa kër sëriñ bi li mu yor leeral na ko ba mu ni fang jëratul yëg lu ni fang la noon na dama tabaxub dëkk te dëkk boobu la ma fa bëgg mooy jàng ak jàngle jub ak jubale ak taxawal julli juróom wa asbitan fiihi jamaatan tuqiim asalawaatil xams dahban yaa akiim ñaanam googu de sëñ bi nangu na de waa ci ku mu nangoo ku mu nangoo waajee de ko jàpp ba seel wuti jàkka ja nee na sëriñ bi sax ñaan nangu na waa ji lànk nee na ko sëriñ bi sag ñaan duma ko bàyyi mu nangu du nangu sëriñ bi yaa fi doon ñaan naan jamaatan tuqiim lànk na bëgguma nga am ndam ci ni sama ñaan nga nangu na yaa ko wax yow mi demul julli ji yaa wax sëriñ bi ni ko sa ñaan googu nga ñaanoon bëgg mu nongu fas naa yéenee lànk kandaare ba doo bàkku ci sama kaw naa ma ñaan nga nangu na wa asbitan fiihi jamaatan tuqiim asalawaatil xams daaban yaa ak yi mbokki jurit yi waaye nan nafaraat téere yi waay barki démboo njaay am na ku wax wax ju am maana bokkul ci yoon wi de waaye da doon dàggan seen teg kenn ku nekk ci yoon wi waaye wax jëm wax dafa ma tiital te lam bëgg a wax ñëpp xam nañ ko daf ni moo bokk yi koo xam ni li mu bind waxagoo ci ab kilo looy wute loo ca dolli xam nga lu bëgg a wax yéen a wax ni sëriñ bi nangami ton la liggéey waaw nangami ton nag comme jeexaloo kilo kilo bi looy wute ndoolent kilo laa wax de kenn ku ci mokkalub kilo amul kenn ku ci mokkalub kilo amul waa mbokk yi kon luy ndey sosaat leneen bay diw nee na maam diw nee na góor gu baax wallaay góor baaxul góor baaxul de xam góor gu baax gi dëppoog li sëriñ bi wax góor gi baax mooy ki la nettali li sëriñ bi wax te sëriñ bi li mu la wax mooy li yàlla wax mooy li yonent bi wax du ñu juuyoo mukk abadan aqsamtu billahi inni li nabi abadan xillun waxibun wa ma yabahu abaau nabiyuna al mustafa gayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yabahu abaau lii lu ko gën a leer am na kii mooy sama soppe mooy rasulullahi bul ko laal de kenn ku nekk ci nun ab soppeem boo ko laalee àddina tukki loo bëgg a jiiñ sëriñ tuuba nga tuuse yonent bi bana la nga tuuse alquran bana la waxuma nag yàlla kon képp ko wax benn baat buy suufeel alquran walla muy suufeel rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa sayquna ahmadu bamba bariun mink génn na ci yow te ëllëg bu ñu lay dóor danaan na metti dafa bëgg xaritam de dafa bëgg soppeem de léeg-léeg yéen am ku wax luy niru ni dafa dal ci sëriñ bi kenn ku nekk fëgg naa bu ma ko fekkee woon rey ko yaa gën a am pour la sëriñ bi kon ku dalub sëriñam bul ko fekkee rey la bu ko fekkewul xaar la bëgg a ñëw bu ñuy duuma mu naan jërëjëf te gaa yi dañoo baax nag dañoo bëgg yàlla lool bëgg yonent bi lool bëgg àgg ci lépp lu mu def da leen di neex lépp lu mu def da leen di neex duma nit sax da leen di neex bu ñuy duma sax da leen di neex na ngeen bàyyi xel ci loolu sab soppe bu la dee def lu metti doo ko yëg kenn ci yéen ba mu reeree ba pare am na séetam bu dawee fële fekk mu summeeku mu wadd cëppeelu ci biir bi mu tàpp tàppal raay lim la def de metti na loo ko loo ko fayee raay ko loo tax da koo bëgg noonu nga bëggee sëriñ bi noonu nga bëggee sa set bi ni sëriñ Bamba bëgge rasulullah ko ëpp kon bul ko tuuse waay te bëgg àddina rek la daanu ko yëpp dañoo bëgg àddina wallahi la asim ci laa bokk nag bul defee dañoo daanul sëriñ bi de déedéet seen bopp lañuy daanu dañoo bëgg a wax ne waajaa ngi nii sa waa ji de moom aka foor aka gëm sëriñ bi mu daal di yuqeeku buñ koy jox dara jox ko ko buñ koy tàgg tàgg ko nga defee ni sëriñ bi lay waxal <laughs> mukk ci àddina gafakaam lay waxal waxalul kenn gafakaam lay waxal xam na dëgg yu sëriñ bi wax waaye yooye dërëm du ca génn yooye kenn du ko wax kenn du ko wax boo ko waxee sax kenn du ko diglu bokk yi booy wax ci sëriñ bi ba yàgg waaja yuuxu xàq taay tàccu defal ndànk wirifeel li nga wax ba xam Cheikh Mouhamad Lamine Diop nee na te kat moo doon bind nee na mës ta dégg ci sëriñ bi baat bu jar xàqtaay kon mbokk yi bu nu seetluwaatee waxi jàmbaar joojoog wax jooju mu wax lu doon ay tonti amagoo ci kilo jeexagul xaajagul tàmbalee goo ko sax kon luy ndey wuti feneen ak laqar ci leneen léeg-léeg ngay dégg ñu ni la diw noonu sëriñ bi la li muy yàq wallahi bu ma ko doon wër du ma génn sunu biir nun waxkat yii noo yées li nuy wax ni mu mën a yàqe waxunu lenn lu dul màbbu li fi sëriñ bi doon tabax bu jafeñalee nu yombal bu yombalee ñu jafeñal lii la nekke ndax loolu mën nga indi benn xeex bu gën a garaaw boobu amul benn xeex bu gën a garaaw boobu amul mag ñi tiitoon ragaloon comme ni nu ma wax léegi Cheikh Mouhamed Lamine daga na ku ne xam na nii mu demee woon ci Serigne Touba ni mu jegee woon sëriñ bi mbindam ni mu ko jegee woon nga xam ne li ci ëpp ci loxoom lay jëkk jaar moo wax ni mësuta dégg benn bayit bu jar boo xam ne nii danga cee war a kontaan bare ree nee na xamu ko ndax mbokk da koo gën a xam bayit yi fooguma ko de dañoo nattale laaj ko benn bayit kullu muridin bi yalluusu fa yalluusu yasaadu fa innahu min al aza mubahadu waaw boobu bayit jërul fecce waay sëñ Mouhamed Lamine Diop na ne bi bayit boobu ma jooyloo moo ma tiital ñu ni ko lu tax nga tiit mu ni dama xamagul murit la maam déet examen boo xam ne ni at go loo ciy fecc demal ci université bi bu gaa yi xaar pro yi doo seen kenn ku fecc de te jàng nañu ba dee waaye ñoo ngi ne yoggu yoggooral lu ñuy xaar ñu joxe pro yi bu ñu bu ñu tuddee ku ku at mi rek yuux ya dal daa di songoo defu ko woon bi muy xëy si de loolu mooy résultat kon résultat bi jaroon ñu fecc mooy ëllëg ëllëg ëllëg boobee nga xam ni sëriñ bi dafa war a puukarewoo sa jëmm yow de bi nga fi nekkee li ma wax mosoo cee teggi dara li ma digle mosoo cee teggi dara li ma tere mosoo cee bàyyi dara loolu mooy résultat bu baax bi nañu fexee am résultat boobu mag ña foofa lañu nekkoon de xamuñu woon askan déedéet mosuñu ko tudd seenu làmmañ mësuñu ko tudd seenu làmmañ ku mu neex nga dem tas vidéo yi ku mu neex nga dem diglu jitaay mag ña laa wax ku jëma sa dégg ñooñee wax lenn lu jëmul ci yàlla bu ñuy wax ci sëriñ bi wallahi xawuñoo ñimee tudd tur wi ku baax keeg ku tedd ci rek ànd dal léegi la rongoñ génn waaw mbokk yi ndax dañ leen a gën a xam sëriñ bi ndax dañ leen a gën a xam yàlla déewu lay dañ leen a gën a bëgg àddina rek bëgg àddina dafa fees lool lool bëgg àddina googu nag yóbbu dañ ci yoonu sëriñ bi dañu koo jàddal ba ni mu ko tuddee woon muy lislaamu kese nga bëgg koo def muy matériel kese mu ngi mel ni jumaay juré ji kaar boo ko defan tey muy barab boo xam ne ni wisit rek lañ fiy def xool photo bu boobaa ndax ki ko tabaxoon di Seex Sidul Muxtaar radiyallahu taala anhu bu dellusee du wuti yet jël ay miliyaaram def ko ngir lan li iqaamati salawaat taxawal julli juróom yow nga tudde ko neneen def ko neneen faade woo ko sax boo fi dugg doo jàpp doo fay say portable dangay mel ni man rek ci koor gi dafa dend jenn waa joo xam ne nii li ma tax a gën a mere appareil yi saa bu ñu sëlmalee benn sëlmal li muy gàtt gàtt ci diggante bi dana fi xool message yi <laughs> subhanallah mbokk mi waaw loolu ndax nag du ba ci réew mi moo tax naa sunu sëriñ sëriñ Soaybu yey nanu ba mu nuy tere ab rajo dinu tere télévision ndekete woo lu ko gën a garaaw a ngi ñëw te moom daa xamoon ni yu ndaw yooyu loo ci def bis dina ñëw nga def lu ko gën a rëy bis dina ñëw nga def lu ko gën a rëy kon nag bokk yi appareil su ndaw soosu cey li yor ci xiiwal nan ko jëfandikoo bu ngeen xaman li ci nekk ci ay téere yu ñu mën a jàng li ci nekk ci ay boroomi xam-xam yoo xam ne boo leen laajee ñu tontu la bu ngeen xaman loolu foo ko taale loolu ngay jëkk a def boo xëyee sa kër bala ngaa xëy jël bind bala ngaa xëy jël bind te jàng képp nag moom la sëriñ bi digaloon ak jëfe li ñu jàng amul beneen ndigal bi ci des lépp noo ko sos rek ki ma ko nettali jàpp naa ne ñi ko ëpp daraja ci yoon yu bariwul mooy Cheikh Saliou Mbacké ñoo toog te li may wax day am seere mën naa am ki ma ki ma seere mu ngi ci jàkka jitaay bi mbaa julli si na mbaa julli si woon na keroog muy sëriñ Modou Xabbaan moom sëñ Fallou Mbacké noo bokk toog sëriñ Saliou nii sëriñ Touba lu mu def alxuraan a tax kon nag boo doya dalee alxuraan doya dal nga sëriñ Touba nee na bu taalifee sax alxuraan a tax bu bayee alxuraan a tax mu wax ni dafa am noon bu mag bu ñuy wax iblis du maroog moom mukk maanaam du juboog moom waaye bayit yii muy bind ngeen di ko jàng muy bayit yuy dàq iblis lam yan uni yu ni gàññi gàññaaral nee na moom lay jàng iblis dandu mu jël téere bi kon téere bee ko tax a jóg kon fawu am murit day fonk alquran xam nga waxoon naa fi benn kull bu ñëpp di fettasu kullu muridin bi yaluusu fal yudib ndax moom fettasu nañu sëriñ Tuubaa dafa waxoon kullu ni bépp murit bu aju ci man texe nga tey ak ëllëg gaa yee fettasu mu jëlaat même même baat même phrase ni kullu muridin bi yaluusu fal yudib tilawatan li xayri sikrin xadru si ku aju ci man te muy dëgg fu ñu la fekk na nga yor alxuraan di ko jàng te di dégg maanaam yi waaw ñaari kulu yi lu leen wutale ndax ñaari jëm a ko wax kenn kee ko waxoon te lam waxoon la nekkoon njabootam ci lañu nekkoon njabootam ci la ñu nekkoon nit ñee dàq nettali ci àddina bi ñoo dàq kër yi ay xalaat waaye indil ma fi benn doomu sëriñ Touba boo fekk muy toog te jàngul alquran mënoo koo am du góor du jigéen kon déggoon nañu la Serigne ba wax. tey nag dem nañu ba am ay falsafa yoo xam danañu àgg ci ni daa gën a màgg alquran wala yaasu billah yàlla bu ma ko dégg man àgg ci ni eh, muy seen Serigne sax léegi waaye nag kon dañoo gën a muus ñoo gën a xam Cheikh Mouhamadul Fadil ñoo gën a xam Cheikh Moustapha ñoo gën a xam njabootu sëriñ bi sëriñ bi fooguma ko nag dama jàpp ni rek ba bànneex la mbokk yi nanu dimbali sëriñ bi waaye ci taxawal ko diineem ji diine ji mu ne wan dama fee ñëw ngir yeesal ko képp yeesal mooy lan lu fi amoon la waaye sosul yonent bee ñëwoon di woote gaa yu baax yi ñëw ginnaawam di ko jottali woote bi di ko jotti lil woote bi noon loolu la waxoon nee nag ku fekke nag ma ko jotti ku fekkewul loola moo dugal ku xam nag ma jotti lil ku xamul foofii la sëriñ bi nekkoon te dara du ko fa dindi koo dégg mu ni dafay wax ci sëriñ bi lu jaaduwul la mu wax noo ko wax la waajoojee di kontor noo ko wax sëriñ bi waxu ko amul benn boroom xam-xam boo xam ne ni teg na téereb sëriñ bi tiim ko jàng arab xam ko wone ne sëriñ bi lii mu wax naa nga nangam ak nangam amul waaye bu nu waxee suñuy najoore ci mbedd mi benn waay dikk ko ko même nun ci suñu bopp noo ko war na di ko benn boroom xam-xam dafa wax ni ñaara ngi nii ñoo bokk lu ñuy wax waaye bokkuñu am noon ak soppe bu mer am noon mën na laa saaga soppe bu mer dikk répété saaga wi bul bokk périmé de bokkuñu ñu ne ko lu leen wutale mu ni noon bi lim lay ayibal day bëgg mu continuer boo ko bàyyee sax mu mer soppe bi lim lay ayibale boo ko bàyyee mu kontaan lii rek leen wutale kon soppe bu mer dana wax lu jàdd lu jaarul yoon waaye wallahi bis boo ko bàyyee nga xam ni waajaa def soppe waaye noon bi li mu lay waxal lu mu ne wan seew saa bu xëyee gis muy gën a yokk foofu nag moom la ñu nekk foofu la ñu nekk waaye Serigne Touba benn doomu aadama bu xam laa wax bu xam bu koy teg ci deram lu ñaaw amul waaye nag waxkat yi bu ñu waxee ba àggal au lieu yow itam nga yemale wax ji ci ki wax nga ni murit yi ba romb ko ba dem ci sëriñ ba te fekk seex gi képp wax tontul seex gi mii wax moo waxi najooreem moo wax ci sëriñ bi loo xam sëriñ bi waxu ko doomi sëriñ bi waxu ko kenn ku jige woon sëriñ bi waxu ko moo ko ker ya bër ki démb ngir bëgg bës danoo bëgg tàccu nag tàccoog fi danoo neex lool lool lool te dara baaxu ci nag jay baaxul jay dafa xaraam boo ko defee yàq nga ki nga koy def ndax bu mënul boppam du téye boppam ba xam ne dañ koy jay dana ci sànku sa sëriñ Tuubaa nee na xam nga ku dib dofa mu nekk ki nga xam ni daa fekk lu wóor mu bàyyi ko fa jàpp ci lu ñu sopp lu ñu so lu ñu lu ñu ah lu ñu lu ñu jot waman yada yaqiinahu limal wara yasunnuhu fiihi fa xumrun suukara sëriñ Tuubaa nee na ab dof tigi mooy ki nga xam ni li ko leer la bàyyi jàpp ci li gaa yi jortoo xam nga li nga jortoo sax moo tane waaye li gaa yi jortoo ci yow da ngeen naan seex bi o jàppoor la aka mën a jàng aka naa nga mën naa nga te ma xam li ma xamul ak fi ma yem loolu moom daa leer nañ ci man waa jii nag lii muy wax ci man da koo jort kepp bu ma dofee nag ba topp loolu bàyyi li ma xam sëriñ Touba nee na dof buy gëmmentu ngoo dof buy gëmmentu mooy kooku lu gaa yi mën a wax dellul ci sa bopp rek laaj ko xam nga li nga xam xam nga li nga man yemal foofa bu gaa yi yëkkatee ba dem asamaan it nañu wàcc rek fekkaat la ci suuf gaa yu baax yi noonu la meloon foofu la sëriñ bi doon digle wax na ci fi muy jàngaleeg taalu bi doonte kenn du ko firi téere bi nga xam ne moom moo jàngale taari bi piir nag muy uqal bu kaw yaakaar naa ni sëriñ Isa dana ko boole ci leçon yi ndax ku nekk ci biir biiri taalibe di jàngale boobu téere war na jiitu ndax lan mooy jàngale ak taalibe taalibe gi sëriñ bi wax laa wax de waxuma nag gi ma wax man man gi may wax ngir bëgg nga tàccu ma ak ngir jox ma dara dama bëgg nga tàccu ma bëgg nga jox ma dara damay tappale rek waaye du dara waxuma dara ni ma gise <laughs> ni ma waaye ah, yow de war ngaa toog sa kër ah, sëriñ bi moom comme am nga sa gis-gis ak sa yëg-yëg dooye wootoo ko dara waaw léegi nag oqal bu kaw lu mu fa wax nee na gaa yu baax yi gaa yu baax yooyu bu ñu demee ba nga laajoon leen benn laaj dafa tagg seen melo tagg leen a tagg tagg tagg ba ñu nekk ca kaw mu ni ñii nag seen melo yu rëy yépp ak li ñuy kawe lépp ak li ñuy baax lépp boo yéene woon ni kan moo yées ci àddina ku ci ne fëgg ab dënam ni maa ngi nii bul jël fenn maa ngi nii te nga sëriñ bi nee na ñoo gën ci àddina bi ba àgg ci ni sax ñooñu kuy liggéey ñoom nga war a liggéeyal kuy sopp ñoom nga war a sopp kuy joxe àddina ñoom nga joxe àddina ba <laughs> bayit boobu nag dañ koy dagge tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati bayit la boo xam ne ni lu ëpp ñaar fukki bayit jiitu na ko ba tax wax jee jóg waaye dañ naan dagget ni ko joxee tegal la ne leen lii la sëriñ bi wax daal di xool sa bopp ni man mii la ci jublu man mii la ci jublu jublu de ñamu jublu mooy ña nga xam ne yan saw na sal salma wala yi laa fi xiyaamihim ko waxal boppam nee na ñi ma jublu mooy ñi nga xam ne dañoo bàyyi woon àddina fàtte bànneexi àddina fàtte lekk ak naan jàpp ci alquran jàpp ci sikar yi jàpp ci julli yi ba taluñoo nelaw taluñoo lekk ñooñu yi laa doon wax ni ku leen liggéeyal dem nga ku leen bëgg dem nga ku leen jox addiya dem nga waaye waxul am seex gay muy caaxaan rek loolu moom waxu ko kooku moom waxu ko nañu jàng téere bi ba mu àgg xasiida bu am solo boo xam ni jàngkat yi war nañ koy jàng te jàpp naa ni nag euh, nii dajaloo ci jàkka ji fa tabarakallahu yal na yàlla fay leen di def lan ngir joxe farata yàlla ji yell na it nag ñu di ko defe noonu ngir xam si farata yàlla ji jàngalekat yaa ngi fi bari lool Serigne Issa Gueye boroom xam-xam la am na ñeneen ñu toog di ko seetaan bis bu deboon ba nit ñi ëpp ko ñooñu dinañu dugg ci géew bi dikk jàppale ko nii boo demee jumaa yi Touba yéen ñëpp a ngeen jànge Daarul Maarif xam ngeen ko 1963 lañ ko ubbi def fa borom xam-xam bu mag bu ñu woyee sëriñ Alhaji Jaxate way lool gëm ndigal lool gëm ndigal xam nga gëm ndigal mooy lan 1963 ba ñu ko nee toogal fii di jàngale ak bisub àjjuma tey bi yem boo ko demee fekk ko kan moo def toppee noonu ndigal ci noonu rek nan wax dëgg ku ci toppee noonu ndigal 1963 lañ ko joxoñu baram ni ko toogal fii di jàngale dégg naa mu ni loolu damaa yóbbe ci bu ma fi toogee xam lu bari bu ma fi jógee dootuma xam dara kon ndekete toogal fii ja daraa nga ca biir tey la fa jóge ci ay boroomi xam-xam kenn xamul nu ñu toll boo doon di lim ci Touba tey ak saxaar ngay tegale te mësoo koo gis ci écran bi mësoo dégg ñu euh, dajaleel ko dara mësoo dégg ñu wooteel ko fenn dara ngir lan boo ko defoon samu lànk day bañ nga yàq daraam bul yàq liggéeyub yàlla foofu la gaa yi nekkoon démb mbokk yi kañ lañu kañ lañuy dekkalaat dëddu àddina googu nga xam ni moo sosoon yoon wi bañ àddina googu nga xam ni moo sosoon yoon wi yi appareil yii nax nu bu taxawee kenn ku nekk bëgg a feeñ ci kanamam caméra bi caméra caméra xam nga ki gën a texe mooy ki caméra bi teggi ba bañ ko wane kooko am sens kooko am sens waaye léeg-léeg sax dégg naa ci cérémonie yi gars yi daanu jox ku yoreb appareil pour mu feeñal la bu rëy a rëy wala yasubillah mbokki jullit yi ndax kooka booba xam nga ki ngay ki tax nga toog fa ki tax fa toog fa moo doon nëbbatu ci gott yi moom lañu ñu fàkke ba fekk bakke ba wal mu xumb mu dem Daaru Salaam mu xumb mu dem Touba di jéggat ba dem ci yéen ngir rek daw nit ñi kooku nga di moom ngay roy yow nag fu nit ñi dëlle foofa nga jëm fu nit ñi dëlle foofa nga jëm bëgguñu ñu yëg la bëgguñu gis la xaw ma lu muy jariñ ah seede daal moo am solo bi may nettali léegi sëriñ Modou Xabbaan mi ngi nii far toog nun duñu fen danoon ko moytu lool ba nu sëñ Saali wuy wax nii eh, sëriñ Touba lu mu def alxuraan a tax lu mu def alxuraan a tax bu taalifee alxuraan a tax leneen lu mu doon alxuraan a tax ba indi bayit yu bari lam yan uyi lam yan uyi yu baree bari mosumaa gis ko mokkale noonu ay bayit yu bokkul xasiida yu ñu nekk kon yal ko yàlla fayal dimbali nañu bu baax a baax barki démb wax naa ko ci télévision bi bi ma invité benn xele bu def benn livre ci miraas ak yeneen livre yu bari ma ni ko damaa bëgg nga limal ma ci Touba ay bindkat waxuma nag ku juddu bu yàgg ñoo ñu moom dañ leen di teg ba ci kanam waaye diggante quatre-vingt ak léegi ñi fi juddu te bind am na ci ñu may jàkkaarloo ci sàppe yi bind ay livre yu ni gàdd ca mbaar ya ca naaj wa léeg-léeg du ñu amul dépense waaye duñ ko wuti de buñ ko wuti woon du ñu xam dara buñ ko wuti woon du ñu xam dara ligsi bii day tas daara na ngeen ko moytu yéen boroom daara yi ligsi day toj day tas daara bâtiment bi rafet lekk gi neex kat-kat yi taxaw nga toog ci daara ji doo fa jóge na fa suñ sooy bu toogee woon xam ngeen ni mënta am laajal mbokk yaa ngi nii teew ña toogoon ci suñ sooy bu ma saa xëy sol fox yaam bu woyof boobu yor kurusam googu waaxu wuti mbaar ma toog ci piliyaanam boobu xele yu xeeñ wër ko dama bég daal li ma bégee mooy li may wax ñi ko teewe woon a ngi nii ko teewe woon a ngi xele yu xeeñ wër ko mu muñ xeeñaay ba muñ tàngoor wa ba tey jii al fatail taxarraju min yadihi sarifa boroom xam-xam yu mag yi génn ci loxoom looloo ko ko may yal nañ ko yàlla fayal ak lan ak liggéeyal sëriñ bi ndax sëriñ bi moo ko ni wan nanga ma liggéeyal ci alquran ñoom ndigal loo leen wax jërul yee salaat yal yàlla fayal mag ñi te dëgëral nu te def ci suñu xol bii ak bàyyi àddina te jéem a topp yàlla bégal sëriñ bi ba bu nu séenee xam ni li mu digle woon wàccaguñu ko te yàlla buñ ko wàcc yal yàlla boole defal eh, topp tey ak ëllëg te defal nu tawfiq musal nu musal jaam yépp ci mbooleem musiba yi yàlla indi lu nawet bu barkeel bu mat sëkk boo xam ne li sëñ Abdou Khoudous daan wax bu nu ko yoraloon suñu bopp fan koy yóbbu yal nañu ko fa yàlla yóbbul bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi jégalu ñëpp nag wax ji daa xaw a ñàng waaye comme ci tuuti noo ngi lay jégalu léeg-léeg ni man lay wax bu ma la waxul juum naa wax ji bu dalul ci sam mbagg waxoo dëgg kon waxuma dëgg benn yoon alxuraan ay wax yonent bee wax Sëriñ Tuubaay wax te kenn du ci borom daraja ci kanamam. yal na yàlla boole defal dégg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.